man damay insister ci réaction yi nga xam ne fii Sénégal d'abord la amee ay intellectuels yoo xam ne kenn mënu leen askanale parti bi wala parti bële te loolu bu amee rek mooy dëgg ngi feeñ parce que nit bu bokk ci parti mun nañ ne day far day farfarloo waaye koo xam ne kenn mënu koo askanale ci parti bi wala parti bële nit bu xelam di màcc la muy xalaat di wax te kàddoom bëriwul gaaw la addu bu demee ba jël xalimaam bind xamal ni dëgg feeñ na kon ñu ngi leen di gërëm mënuma leen lim ñoom ñëpp waaye yéen yëpp yéen ngi liir journaux yi dafa mel ni soo seetee rek universitaires yi ay dizaine dizaine universitaires bind loo xam ne tey au niveau national ay au niveau international Macky Sall bu ko desee woon tuuti lucidité fi mu toog war na xam ni mbir mi xëm na ba noppi te kenn mënul ne ñooñu man xawma leen xalifa xamu leen jokkoo ñoog ñun bi ñu koy def parce que réew day am fu mu toll ku ci noppi rek da ngaa sot ki nga sotal nag mooy ki tooñ dootul affaire politique ndax dictature bii di dox bis buñ ko bàyyee ba mu egg bu paree ci leader politique yi ci askan wi la jëm du universitaire du avocat du notaire du journaliste kenn dootu fi wax foofu lañu jëm motax day am fu muy toll dootul xeexu politique dootul xeexu conquête du pouvoir xeexu sauvegarder li nga xam ne acquis démocratique la te loolu defe naa ñiy wax yëpp xam nañ ko waaye ñi réagir yëpp au niveau international gis nañ fi ay artistes man xawma ma leen lu dul xanaa ci seen musique la la la leen xamee gis nañ fi ay universitaires gis nañ fi ay mais c'est extraordinaire au niveau africain laa wax ñu jël seen responsabilité dadi wax ci li Sénégal parce que nous sommes dans un monde ouvert ku les ni manipulent nga manipuler nit ñi suivre l'actualité, di déglu di réseaux sociaux surtout le meilleur indicateur de la vérité aujourd'hui c'est les réseaux sociaux